ginnaaw inauguration bu yàggul dara bu jardin public bu bopp ak lancement bi mu def ngir liggéeyaat 57 jardin ak espace public yu nekk ci commune yu nekk ci capital bi ville de Dakar ci taxawaayam ci wàllum kaaraange ak nekkinu askan wi ni mu ko soxalee mi ngi leen di yëgal ni dinañ tàmbali ay travaux ci allée Khalifa Ababacar Sy mercredi 31 mai bii bu 16h jotee liggéey yooyu nag dinañ am njeexital gu mucc ayib ci askan wi li ci mel ni ay aire de jeu pour xale yi ay espace ay jardin ngir ngeen mën a bàyyeegu ak xel gu dal ay espace pour seen stationnement ay zone d'exposition ay terrain pétanque ak nag ay zone ngir ngeen mën a wane seen xarañte ci wàllum aar mercredi 31 mais bu 16h jotee cérémonie de lancement pour liggéey yu ñu war a dëkkmal ci allée Khalifa Ababacar Sy si ndigalu ak taxawaayu magistrat bu njëkk ba noppi nekk maire ci ville de Dakar monsieur Barthélemy Toye Diaz Dakar bi ñu bokk